asalaamaaleykum mbokk yi mbokk yi maa ngi leen di dalal fii ci seen dëkk di Dakar président Habib Sy di président de la conférence des leaders maa ngi lay jégalu wante aw ma lu may wax parce que lu ñu naroon wax ñun wax nañ ko ba pare dama ne am na fu gor di tollu gor moomatul wax lu mu moom mooy jëf est-ce xam ngeen lan mooy seen warugar yéen xam ngeen seen warugar yéen xam ngeen seen warugar baa xam ngeen lan moo doon doon seen taxawaay yàlla na leen yàlla aar na leen yàlla yokkal sutura te suñ ci yeggee incha allah yàlla na leen yàlla may ndam dama ne coow li coow li bi yëpp Macky mu may dégg ñaar rekk mooy am on t'a tendu la main kaay ñi waxtaan soo bëggee nga jël loxo gi soo bëggulee jël loxo gi tu prendras le de poing maa ngi lay gërëm maa ngi leen di sant. ajo dégg ngeen ko kon nañu tàllal benn loxo bi lem pañ bi bu jëlul bi jël bi donc dañuy enchaîner rapidement.